président Ousmane Sonko. salaamaaleykum. mbokk jullit yi fi teew. Cheikh Ahmad Aboubacar le porte-parole xalifa mu ne. mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mi ngi leen di tatagal bu baax a baax. waaye nuyoo bi mu leen nuyoo kenn ku nekk. mi ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant. nuyoo boobu nag li mu làmboo lépp ci barke. mu ne nuyoo boobu nga xam ne lamboo na ñett muy jàmm yërmande barke. ñu ngi ko yëkkati. di ko teg ci loxo président Ousmane Sonko. di tax nag ñu def ko. mooy ku fi ñëw ku nekk. mooy fi ñëw moom moo la fi indi. moo tax nuyoo boobu bu ko yëkkatee. jëlee ko ci xalifa bi mi ngi koy teg ci loxo yi président Ousmane Sonko. amiin yow. mu ne dana yëkkati kàddoom. waaye nag mu jugee ci ndigal. ndax Alxuraan def ne lépp lu leen yonent bi dikkee jël leen ko. waaye arab bi mu ne arrasuli bi xadri muslim waaye arab de ndaw lu nekk mu ngi amee dara jaay ko ko yónni. mu ne yéen day. ñi fi teew umpale wu leen ko. umpale wu ne. umpale wu leen ne. kaddu kër gii di lew nañu seen. kaddu kër gii di lew nañu seen kër maam Xalifatul Xaaji Mahamad. kii suñu waajur di seen sëriñ. kii seen waajur di seen sëriñ. di suñu xarit di suñu xalifa. di suñu xarit di suñu kilifa di suñu xalifa. ñëpp yëg xam nañ ne. ñëpp yëg nañ ne xam nañ ne. porte parole lu kër gi lu kër gi mooy ku yore baatam moom la ko dénk mooy Ahmed Aboubacar mi. fu mu bokkul maa fay wax ci ndigalam. mu ne fépp foo xam ne yëkkati na kàddu rek mu ne mi koy yëkkati ci kàddu xale ci ndigalu xalifa bi. fu mu demul te war te faa dem man la fay. fu mu war a dem te manu faa dem mu ne moom mii la yónni mu teewal ko fa. léegi rek de. mu ne léegi rek de. la doon recevoir ñoo xam ne. ñi ngi faree ci feneen. ni ngi faree ci feneen. te mënu fa a teew. te moom mënu fa woon teew moom xalifa bi. mu moom la yebal mu teew recevoir ñooñu. li tax nag fii ñu ñëwee mënu ma fee teew ndax dama doyul wala dama amul. mu ne kon nag bu président Ousmane Sonko ñëwee xalifa bi tabaarakallaahu jàpp waay waay mu war kaa mën a euh, euh, euh, wuutu mën a recevoir ñi nga xam ne bi. moo ma xalifa bi moo ko woo. président Ousmane Sonko dafiy ñëw. ne ko day président Ousmane Sonko dafiy ñëw. te suba la ziyaare. te suba la ziyaara bi. yaram wi métti na lool. te yaram wi métti na lool toogaayu jumaa ji yàgg tool. te xam nañ ne fan yëpp toogul. te xam nañ ne fan yëpp toogul. te yow yaay man ma man maa yow yow yaay man. mu ne ko yow yaay man maay yow. recevoiral ma sama gan. dama bëgg nag sama gan googu muy président Ousmane Sonko Cheikh Ahmed Aboubacar nga recevoiral ma ko. lépp loo ko wax maa ko wax. lépp loo fa wax man maa ko wax man xalifa Cheikh Ahmed Tidiane. mu ne loolu mooy wax ji moo tax mu leeral ko leer nañ. Ah, président ñu ngi lay wax marhaban bi ka président Ousmane Sonko ñu ngi lay wax ne yaatal ñeel na la ci kër gii buy kër xalifatul Haaji Muhammad ak koo àndal. ak képp koo xam ne ànd nga ak moom. ah kay li nga wax noonu la. mu ne ah kay li nga wax noonu la. kër gi dafa woote. ndax borom kër gi mooy xalifatu xaaj Muhammad dafa woote. Hmm, dafa ne. dafa ne. yaa biidu yaa suudu yaa urkun wa yaa ajamun. fatu ilayya li axdil wirdi wa diin. maam xalifa dafa woote ba ko yàlla wooteloo wa daayan ila allahi bi idni wa sirajan muniran mu ne yaa biidu yéen ñu weex ñi yaa suudu yéen ñu ñuul ñi yaa urbun yéen arab yi yaa ajamun yéen làkkat yi làkkut arab ñu ne xalifa lan la mu ne fatu ilayya ñëw leen ci man li axdil wirdi wa diini mooy lee tax mu jiital wirdu waaye li axdi diini wal wirdi ngeen jël diine yonent yàlla Muhammad waaye jàpp tariqa Cheikh Ahmad Tidiane bi nga xam mooy tariqatu najaat ilayya bi amwaalin wa anfusikum likay tafuuzu bi nayli fath fil iini maam Khalifa tegaat ci beneen bayit mu mel dañ ne quoi bu ñëwee lu ñuy indaale ndax lu ne am na prix lu nekk am na prix mu ne faatu ñëw leen ilayya ci man Khalifatul Haaji Muhammad bi amwaalin ànd ak seeni alal wa anfusikum ak seen i bakkan ndax mu ngi génne ko laay alquran jooju inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna da ajjana ku ko bëgg da ngay xeex yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal quran wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi bay'ikum alladi baayaatum bi wa dalika huwa alfawzu alazim maam xalifa nag mu ne bu ngeen ñëwee ba ba indi seen alal ak seen bakkan mu ne li kay tafuuzu ngeen texe ngeen gañe li li lay li fataxi fi li xëy na da ngeen am lu ñu tuddee fataxul akbar ca saasa. tey. yal na ko yàlla defal. indi mi na seyxi ma law kaani yaarifuhu. ñu ne ko maam Khalifa. yow bagage bi. foo ko jëlee mu ne indi nekk na fi man. saraf la. ja moo xam ne nii mubta euh, xabaru mubtada mu jiital la. mu ne indi nekk na fi man. bi na cheikh tuddee Cheikh Ahmad Tijaan maa loo xam ne law kaana bu nekkoon yaarifuhu di ko xam ahlul bilaadi réew yëpp mboolem les les les les cinq continents xaw ma les six continents mu ne boobaa ah cinq continents mu ne bu ñu xamoon li ma am jëlee ko Cheikh Ahmed Tidiane yi mu ne. ñoom ñëpp danañ ma dikkal duna tax mii nii kenn du werante. kon nag woote boobu boo ko si ak ñi nga àndal. waaw maam Khalifa woote woote boobu président Ousmane Sonko nga wuyu si ak délégation bu tedd bi nga àndal. rawatina suñ mbokk yi sant Mbacke. rawatina nag tabaarakallaahu suñ mbokk yi sant Mbacke yaxa ñoom moom ziara bi. te dox suñ diggante ak ci xam-xam bari na lool. te liñ dox si diggante diggante Mbàkke ñes si xam-xam bari na lool. buñ ko doon na waxtu. buñ ko doon wax jël na waxtu. kon bisimilah sa kër. kon mi ngi lay wax bisimilah sa kër. xalifa bi mu ne. mu ne xalifa bi mu ne. mi ngi lay tatagal. mu ngi lay tatagal. mi ngi lay yaatalal loxo. mi ngi lay yaatalal loxo. mi ngi lay ñaanal yàlla. mi ngi lay ñaanal yàlla. yal yàlla nangu ñaan. kër gi nag. mu ne kër gi nag. képp ku mës a wut réew mi. képp ku mës a wut mi. li nga xam ne loolu la ko njaboot gi waxee. li nga xam ne noonu laa ko jiitale woon ci njëlbeen li. dégg nañ la fi wala fekk nañ la mu ne déplacé nga ñëw fii sukk ci ron xalifatul xaaji Muhammad. te inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. yàlla nee na bu ma jëlee am mbaax def ko ci ab nit wala am ñoñ mu ne. buñ ko buñ ko delloowut du ma ko jël te li fi neewoon démb moo fi nekk tey. budul dara sax. mu ne budul dara sax. suñu gan nga. waaye ma ne suñu gan nga. ndax yàlla bu am yónnent bi moo ne. te yónnent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis bu wér de. man kaana yu'min billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu. képp koo xam ne gëm nga yàlla. loolu la ñu bari ñu ngi koy wax. waaye gëm bis penc loola loola nag. mooy mooy affaire bi gëm na da nga dee dajeeg yàlla ca bis penc mu ne ku gëm ñaar yooyu boo amee gan teral ko waaye jàmm la ñuy ñaan rek mu ne ñun dey daw nañu seen jàmm la ñuy ñaan waaye boo fi jógoon dégg jàmm la sax waaye fii boo fi jógee woon dégg sax jàmm la suñu responsabilité kon nag ñu ngi ñaan jàmm kon ñu ngi ñaan jàmm yàlla nañu ko yàlla defal ci réew mi mu ne yàlla yàlla def jàmm ci réew mi jàmm ci réew mi jàmm ci réew mi nag mooy waxtaanee mu ne mooy waxtaanee réew. sëriñ si nañ waxtaanee réew. mu ne sëriñ si nañ waxtaanee réew mi. politiciens yi nañ waxtaanee réew nañ waxtaanee réew mi. di ñu teeri réew mi yëpp mu ne di ñu teeri réew mi nañ waxtaanee réew. wax naa wax na ko keroog de. Sénégal gaal la. mu ne Sénégal gaal la. ñun ñëpp ci biir gaal. mu ñu ngi ci biir gaal gi ak suñuy bagage gaal gaal ci biir njëkk bi da daw. gaal gi mi ci biir géej gi di daw. kon dañuy ñaan yàlla gaal gi mu ne dañuy ñaan yàlla gaal gi mucc ba teer fa nañ ko bëggee. loolu la ñuy ñaan. mu ne loolu la ñuy ñaan. suñ bés bii nag. a suñ bés bii di ziare law dañuy ña ku dul jullit sax. mu ne ku dul jullit sax. bu ñëwee. bu ñëwee. na ci ziare bi laa ñëw. na ci ziare bi laa ñëw. danañ wax ak moom. mu ne danañ ko recevoir wax ak moom. tegginal ko. tegginal ko. ko teral ko. ndax loolu loolu lañ ci sant. loolu la ñu lislaam sant loolu la ñu yonent yàlla Muhammad wax. jaaxaan nag lañ tëddee. mu ne ñun nag fii lew nañu seen njaaxaanaay lañ tëddee. fi benn benn média jóg ne ña seen ñii la ña seen. mu ne bu fi benn média jóg. di ñu hmm. faral la fenn. naan lii wala lii ña seen jaaxaanaay leen tëddee ku ñëw ñu wax ak yow recevoir la ñaanal la yàlla. mosu ñoo dañ nag di tëddee jaaxaan. te mun a nag loolu ca ajdaad ya la ba ci abaaya suñ maam yi suñu baay yi mosu ñoo dañ di tëddee jaaxaanaay si wàllu politique. mosu ñoo impliqué kenn ci li ñu nekk. mosu ñoo impliqué kenn ci lu ñu nekk. waaye neex. fu waay neex. nga wuti fa. nga wuti fa waay. ndax 100 pour amul ku ko am. lu wax. lan la alquran wax. walaw shaa rabbuka la aamana man fil ardi kulluhum. yàlla mu ne bu ma neexoon ñëpp danañ ma gëm ku nekk ci kaw suuf ma damaa la bind. yàlla nag bu am bu joxewul 100 pour cent. waaw na ñu ko wéddi ñu bëree bëree bëree ñu xam ne du ko jox kenn. waaye kon nag gannaaw yàlla joxul boppam 100 pour cent du ko jox kenn. kon nañ nañ góorgóorlu. mu ne kon nañ góorgóorlu. ñu ngi ñaan yàlla. ñu ngi ñaan yàlla. ñëw ngeen ci jàmm. ñëw ngeen yàlla ngeen teew. yàlla ngeen teew. li ñu digle ci ziare. li ñu digle digle ci ziare bi nga xam ne ku déplacé ñëw ziare fii. ak ziare ziare sa mbokku jullit. ziare sa mbokku jullit ak xadiis yi yonent bi wax. mu ne liñ ci digle yëpp yàlla yàlla defal ñu ko ñun ñëpp. yàlla yàlla taxaw. yàlla yàlla taxaw. taxaw suñu réew. taxaw suñu réew. def ci barke. def ci àndoo. def ci déggoo. def ci waxtaan ak jub ak maandu. ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla ko yàlla defal. ñuy a ñëpp am na kaddu yu ñu fi defar ñu ngi nii si na Ousmane sa ndigal yow nga ñaanal nga ñaanal ko président yegg këram mm. waaw Cheikh Cheikh kay Cheikh Cheikh waa parce que di kado yi Cheikh Cheikh ñu ne ko diggante moom micro bi jaay mooy PM ci li nga xam ne daal danaa ko santaane mu ne li nga xam ne daal da ko yokk ci wax ji santaane ko président Ousmane Sonko di la ko digal gàtt na xat na mu ne gàtt na xat na waaye fii Alhaji Abdoulaye Niass tëdd. waaye fii maam Alhaji Abdoulaye Niass tëdd. les grands. xalifa Alhaji moom. raawam bu tedd ba borom xam-xam bu mag ba tëdd fa. ak ay sëtam tëdd fa. ku fi mës a ñëw de. mu ne képp fi mës a ñëw di sàkku li ngay sàkku. Omar yebal nañu dañ la fay yebal ne la demal foofu Alhaji Abdoulaye Niass dañaa mu ne ñu ngi la koy wax nga dem foofu ba pare ziare Diène mu ne balaa muy ñaan rek président Ousmane mu ne dafa fàtte mottali délégation mu ne kii toog ci wetam mooy sëñ Xaadim Mbàkke bokk ci délégation bi mu ne keneen moom imam Dramé moom tabaarkalla ñu koy suivre baax a baax imam yi bokk na ci délégation ci délégation mu ne sëñ Amar moom ci gàtt gi la dëkk Amar Pape Pape Amet Cheikh da ko defaloon ay cadeau waaw am na micro Pape Amet da ko defaloon ay cadeau léegi Cheikh moo joxe cadeau yi ñuy jox suñu maasoo lépp lépp waaw